Bienvenue sur Salam Vision. Yeah. salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen présenter émission Fakkat fii si Salam Vision waaw tey ñu ñëw seeti benn jeune talent muy Bébé Diis booy bu am talent nekk fii si marché kii essence tali mag def lu bari si làmb ñu bëgg a ñëw waxtaan ak moom lu bari tey si carrière am ak nu muy dundee si biir koñam Bébé Diis ñu ngi lay nuyu. maa ngi fay ginnaaw bi ñu sant yàlla nag julli si yonent bi waaw. sant suñu waajur di ñaanal sam papa fa tëdd yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ak mboolum jullit ah, di ñaanal tamit suñu grand suñu rakk yi nga xam ne ñoo génn àdduna fan yi si mel ni Fallou doomu laat waaw di masaw papaam di ñaanal tamit suñu mag Sora Cissé waaw na ko yàlla yërëm te ko àjjana at ñu génn àdduna fan yii yëpp at doomu Baye Cheikh Moustapha Diop yàlla na leen yàlla yërëm te xaare la àjjana di sant sama waa koñ nag di nuyu ñëpp nag ñi dëkk si koñ beeg ñëpp maa ngi nuyu ñëpp. waaw gannaaw bi nga nuyoo sant ñaanal ñi génn àdduna yàlla na leen yàlla yërëm te yéexee leen ñu ñëw sa biir koñ seet la gis gars yi niñ lay taxawo loolu noo koy dundee. waaw ni ma koy dundee mooy dëkkin bu rafet la quoi mooy ñii nii nga ma fekk ma toogal ñii ñii laa xam quoi man ñii laa foogandoon boo xamee Bébé Diis xam ne fii nii mu toog nii du fi gan quoi fii du ma fi gan. fii lu ma miin la fi ma toog ni ma ko miin bébé diis fii la soqee fii nii koñ bi nii la bébé diis soqee koo quoi waaw. nga soqee ko fii si koñ bi nekk ak say gaa chaque jour ngay ne seen biir di bëre ñu lay jàppale si combat nan lañ lay jàppalee combat yi ngay bëre. barke suur laay lu mu laaj ñu def ko amaana nii damay dem ba si yàgg damay dem ba si yàgg damay am kersa damay am kersa si ñoom parce que benn nit boo xam ne nit bu xeebu la. yorul taayu mbër bi sax mais ñoom fuñ dem man la ñuy sagoo man lañ tiitaroo maa leen gënal lu ne ba pare lu ñu am man lañ koy bokkal soo yëkkatee Modou Lo wala Balla Gaye ñoo ñu ne noo Bébé Diis moo tax am naa kersa sax si ñoom nii barki yàlla. waa dëgg la ndax kenn ku ne li nga am ngay tiitaroo comme yaay seen sampion Bébé Diis ba nga duggee si làmb ba léegi ñaata combat arène nga bëree. man ba ma duggee si làmb ak léegi maa ngi bëri quatre combat quatre combats arrêtés. waaw nga def ñaata victoire. maa ngi def deux victoire. deux victoire. ak deux défaites. waaw nga def deux victoire deux défaites. kon am na loo def si làmb ndax am na ñoo xam ne boobu ba léegi ñu ngi bëre amaguñ victoire kon loolu tamit sant yàlla la léegi boobu ba léegi ñu gis taxawaay bu yàgg bi lan moo ko waral. waaw taxawaay bu yàgg bi taxawaay bu yàgg comme yéex a bëre wala. waaw ba nga bëree ba léegi xaw na diire ay mois boobu ba léegi bëre waatoo lan la. boo yi nga xam ne dañ koy jël ba mat 15 jours ñu delloo ko. problème mu adversaire maanaam yow mu ma la déggee daf mel ni li ngay teg say adversaire la gars yi waa waaw amaana loolu la quoi dañoo ragal te man wax naa leen ko mën nga ma xeeb si taay mais du ma rido may ga fel génn fel dugg non waaw parce que ñii nii ku ñu nekk sa ginnaaw waratoo ragal quoi. dëgg la waratoo ragal waaw mais nga nekk si di raayante booba léegi combat yi taxawagul. ngay teg gaay lu metti peut-être mbëri di daw est-ce que yow jarul nga wàññi wala nga xool neneen système boo def pour gars yi mën a jël. ñoom la rek ñoom nee bu ma yokkul bu ma wàññi xale bu ndaw laa su ma yokkul nii du ma wàññi. mais instant bi am na ku ne sa xel. instant yi am naa sax le 19 février. le 19 février yaakaar naa. mat cité bu Songane Gueye. cité bu Songane waaw lekk nga avance. lekk nañ avance waaw. nga lekk avance di bëreeg benn booy bu naan cité. sonkaan gay combat bi sax daanaka fii lañ ko xamee fii lañ ko yëgee léegi làmb jooju kon instant bi noo koy waajee. ñu ngi koy waaj comme ni ñu ko doon waajee rek am dañu doon àndal di ko waaj di ñaan yàlla may ñu si ndam waaw xam nga moom bës bu ñëwagul moom wax ji jarul muy sori ndax ñun suñu jëf moo moo gën a bëri ko suñu suñu wax waaw. waaw na ni ngeen ko déggee noonu jëf gi moo gën a bëri wax ji léegi Bébé Diis yow instant bi lan moo ne sa xel carrément carrément. li nekk sama xel comme. comme si làmb ji rek. si làmb mooy le 19 yàlla may ñu talak fekke bu kenn umpee bu kenn umpee di ñaan suñu borom bu dee ndam ndam suñ ko amee mooy lu ñu jikk mooy jig ñu may àndal kenn loruwu si kenn kiwu si yàlla na ma ko yàlla may. mais sànq ba léegi sa biir wax damay dégg chaque jour booy wax ngay wax si ñi lay am ni ngay àndal di pousser lan la lu nekk sa diggante ñoom. sama diggante ñoom li si nekk mooy ànd bu yàggee rek mooy dëkk bu rafet barki yàlla ñii dama dañoo ànd ànd bu rafet. ànd dañ laa lebal loo leen mënut a fay wala. merci loolu lay wax ji nag lebal nañ ma loo xam ne mënuma leen ko fay xam nit sax mënul fay nit hmm. yàlla rek moo am fay moo tax yàlla ñu delluwaat yàlla na yàlla fay ñoom. mais nooy dundee si biir koñ comme comme ni nit dundee seen koñ da <laughs> non mais def loo xam ni yow xam nga ni lii waroo ko def wala. waaw par exemple maat gars yi ñu giit angaas giit angaas met surtout maa sama copain Louf ndeysaan di ko ñaanal ko waa Fallou dama koy ñaanal. waaw di ñaanal yàlla defal ko jàmm quoi waaw wóor na yàlla ndax moom. sama nit la quoi xam nga par exemple ñu laalante mu saf saf mais boo wéetee xam ne sa waay la waaw waaw dëgg la mais après nga dund ak ñoom noonu waaw mais bi am na leneen looy def lu dul làmb wala waaw mooy wàllum éleveur waaw ay laadum wala ay non ay kii rek non yooyu xarak yooyu laadum la wala non non yii nii rek simple yi. kon mën nañ ni ku bëgg laadum tey mën nga ñëw si bébé diis. non ku bëgg xaru simple mën nga ñëw si bébé diis. xaru simple mooy lan pëlpël yi. pëlpël yi yooyu. a ko bi neex na émission baa ngi noonu ñu ñëw si leneen bébé diis mbapat nan nga mbapatee. mbapat ah <laughs> yow mii di ma ko laaj fekkee nga ko di. non xam nga tey émission lañ ñëw il faut que yow nga wax ñu yaay kan. ah ñun ñu xam la carrément. non mbapat naa mais lu ñu mbapat lu néew la bari na bariwul waaw. bari na bariwul. waaw comme nan mbapat am na loo si def wax ñu hmm, def nga lii jël nga lii xam nga pour ñu gars xam kan mooy Bébé Diis. non mbapat nag kii moom li ma bari si tournoi bariwul à part tournoi si def ak booy bi may finaalu ak tournoi bi ma jël Taïba Ndiaye. waaw Taïba Ndiaye daaf quoi. mais bu xeeb yoon benn tournoi sax am na lu muy jariñ. tey ñu fekk la sa biir koñ war nga mën a wax yow kan mooy Bébé Diis carrément carrément. non bébé di ni <laughs> di ma la wax rek bàyyi faal bàyyi faal. mais bébé di am na gel. bébé di non non amul gel de. non <laughs> nekk rek. non amul gel wax ñu li fi nekk. am na luñ ma dégg. non amul wax ci rek. déedéet amul gel. Ah? ñoom ñu taxaw ba ne la kii mooy gelam. non non ñoom am na luñ ma wax yow waxal ci loolu dépassé. laaj ko ndaw <laughs> wax ji. laaj ko ndaw. ah am na gel. ndaw saa am na non saa amul gel de. amul gel gars yi nangu mbër mi am gel de mais mbër lan ngay taw si jigéen lan la lu nekk si jigéen. ah lan moom ne si jigéen ba mbër yi di ko daw. non amaana boo xamee li la yàqal da nga koy xaw a moytu nag waaw. boo xamee amaana jigéen kenn mënul wax si jigéen lu bari ndax suñu yaay quoi. waaw mais boo jigéen moom bëggul ku tardé te ku tardé moo la tardé te boo tardé ñu bala waaw dégg leen nga ko comme nee na jigéen bëggul ku taare te ku taare moo la taareel waaw émission baa noonu ñu ñëwaat ci Bébé Diis ba léegi am leneen luñ ko laaj mais Bébé Diis lan moo lan nga gën a bëgg sa àdduna wala ban surprise nga gën a am boo xam ni moo la gën a neex. man surprise non amaguma surprise sama àdduna man sama àdduna li ci gën a neex mooy tey ñi may àndal ñëpp réussir loolu mooy. li may gën a neex sama àdduna mooy ñi may àndal ñëpp réussir waxuma man ma réussir de non parce que ñoom bu ñu réussir rek man réussir naa. dëgg la waaw ñi bu ñu réussir réussir waaw àdduna noonu la ndax ñu bokk teen ñooy lax sooy goj waaw léegi li wax ñu loolu gën a métti sa àdduna. man li ma gën a métti sama àdduna sama li ma si gën a métti <laughs> mooy li gën a métti mooy sama ñaari nit ñi ñetti nit ñi nga xam ne dama leen a xam ñaar ñi si karo yi lañ doon taxaw fii ñoom daanaka ñoom ñoo tax ñu naan karo yi muy Cheikh Dagana at Papa su ma demee bay bëre nii ñu naan karo yi ñu taxaw naan karo yi ñaar ñoo nga at dabasaar sama mag bu jigéen bokk na li gën a métti sama àdduna loo xam ne tey ji buggoon naa ñu fekke Bébé Diis fu muy bëree. dëgg la dëgg la mais jaam ak di leen ñaanal rek. ñaanal yàlla na yërëm. parce que daba bu ma koy mujjee seeti man am na ndaw ñu àndoon ak Lamine Lo mu ne ma Abdou da ndax yow boo amul combat koñ bi du neex papa bu ma koy mujjee seeti daf ma ne yow boo bëriwul yow man ñaari mbër la am si àdduna mu yàgg Ama Baldé. Cheikh Dagana moom Cheikh Dagana da doon ñaan naan bëreel ndax yow soo bëree ba am ni ñun ñëpp am ñun ñooy say mag góorgóorlu nga bëri loolu moo tax ñoo ngi noonu noonu tey jii dama doon ñaan yàlla dara ñoom ñu ump ñu bañoon umpee dara ndax tey heure yi xajoon nañ fi quoi ndax ñun ñu loo xam ne yàlla war nañu fee bàyyi ñoom tamit defuñu loo xam ne tamit yàlla war na leen yóbbu ñaanal leen amaana tam ñu ngi leen di ñaanal yàlla yërëm leen. yàlla na leen yàlla yërëm te xare leen àjjana léegi ñu nekk si cappaandaw émission bi léegi émission bi fàqat lañ koy woowee mais fàqat si biir bëre yow fan la mooy fàqatee si biir bëre. fàqat si biir bëre fàqat am na ñu bëri buñ téye si ay loxo la buñ téye si loxo ñu fàq la mën nañ la fàq nga nga ñëw ñu sulli sa wax mën nañ la fàq. sullisoo ko ba war a mbëkk sa biir yóbbu laa daanu. neexul kon yéen a ko déggandoo ci biir fàqat bi léegi ñu may la nga tàggatoo ndax émission bi jeex na ñu seet si woon ma Abdou muy Bébé Diis. waaw di sant ñëpp di sant ñëpp di sant parce que lii rek dafa neex li démb am na lu fi xew wane na ko muy Modou Gueye mooy le nouveau maire. da ji da caaree kaw mooy la may wax rek koñ bi ñaari nit lañ yenoon dañ ñoo defal tënj dañ ñu ne tënju leen ñu yen leen Modou Gueye tënju na yen nañ ko mu dem man maa des ak tënju bi te bu la 19 dama ko naan dunkum ñëpp gis ko dama ko naan dunkum dañoo xamul mais le 19 la ñuy gis bébé 10 bu bees mooy ku namm nekk mbër damaa ma nekk mbër te bu le 19 bu ma solo ba génn ba taxaw dugg stade dinañ xam ne waa ko dinañ xam ne yor nañ mbër bu mat mbër yéen ko dégg waaw incha waaw maa ngi sant ñëpp di sant waa koñ bi yëpp di sant ñëpp waaw di sant maire koñ beeg sama papa yi nekk si koñ bi encore une fois di santaat waa karo yi aw ma seen fay bañ na ko ba duñ wax sax bébé diis bu kii bébé diis bu karo yi la ñuy wax parce que man ñoom lañ ma xamee comme maa ngi leen sant di leen gërëm di sant ñu mënuma lim ku nekk sa mais mais na tamit dinañ sànni tuuti rek mooy di di si jiital nuyoo bi cuun ndigal miñal sama rek wës mbay dut sek gars yi laay faal waaw ay ca gars yi waaw gars yëpp ay yom borom ñaari jaase yi bali du jàllu am siga ah, dëgg la kon mi ngi noonu affaire yi jeex na maa ngi nuyu maa ngi sant sama gars yi nekk fee ñi caa féete ginnaaw di leen ñaanal yàlla bàyyi leen ku si mel ni Sadio Kandé yom pikaal booy maa ngi leen di ñaan ndax chaque jour dañuy déggante man téléphone waa di leen ñaanal yàlla jàppale leen ba fiñ ne ñu génn fi ñibbi si ay pikal gaay waaw même luf tamit Fallou yàlla na ko yàlla jàppale Fallou le 19 incha allah maa la ko wax sama ginnaaw ay ne incha allah yéen ko déggandoo kon émission baa noonu faaxat ci beneen numéro incha allah Bienvenue sur Salam Vision.